tijaani sama waay la jamiñal jaara busu wala man sebi jaara jurujub ah son excellence monsieur le ministre est là monsieur le ministre est là moom la Waly Ballago Seck mais monsieur bàyyi si jàmm ma ma sant yàlla. naka liggéey bi ma bi bi bi ma ne yaa ngi ci yóbbu ak ni dëgg la dëgg la kon daal fekk kër ga. waaw soriwul non non soriwul 19 laa ko daw. macha allah mu xëy laa daw diggante Almadies ak Bambilor. ndeysaan macha allah yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm. surprise bi ma doon denc nag. waaw xam nga a ma ko gën a. tuwaate fii la. ci kaw tali bi diggante tali ak terrain yi. même waaw même pas 5 mètres. monsieur le ministre. même pas 5 mètres. da ngay daal di droite non non damay xuus ba ci biir. moom xam maa ngi lay ziare laay la chef. ministre bàyyi ak si jàmm sant yàlla. maa ngi lay déglu waaw tey amaat kontaan bu ci li nga xam ne son excellence président Wally Ballago Seck defati na ko ci baax ak teraanga ak ci ay xewal waaye ak ci jëf ju baax jëme ci ay nawleem fii nga ma gis ma taxaw nii cinq mille mètres carrés la boo xam ne ci njëlbéen deux cent cinquante mètres carrés moo ko jur te mi ngi jóge ci soxna su baax su tedd sii nga xam ne mooy soxna Ramatulaay Ramatulaay mii moo nekk ci barabu liggéeykaayam fans Wally di Faramareen biir di jigéenu Wally yàlla dogal muy liggéey di liggéey di liggéey ci nekkam ak ci ba am fii biir Bambilor deux cent cinquante mètres carrés yu lew dong yu moomal boppam mu toppatoo kiit yi ba mu yemb ànd ak xaritam président jël ko may ko benn dëkkatam bu ñuy wax Cheikh Anta wala ko Papis bi Papis ñëw ba ci teere wan Cheikh Anta fi ko président may damay alalu bopp mënu ko jël dëkkee baa mu jaay mu jël ko may Cheikh Anta bi Cheikh Anta jëlee ba nga xam ne tubaarkàlla macha allah mi ngi dem ci mairie bi ngir def mbir mi ci ay kayitam président toog ba yàgg mu woo Papis mi da ko Papis mu ne ko naa mu ne ko day damaa am kersa lool ci sama yeneen musiciens yi yëg ne may naa Cheikh Anta kër te ñenn ci ñoom mayuguma leen muy jur frustration ba tax na kat waajal nga delluwaat ci ramatulaay foofu ma may Cheikh Anta mu xoolal ma la fa des ci ay pàq ma jënd ko ngir musiciens yi ak staff bi ñëpp mën a am. bi ñu ñibbisee ba xool topp mbir yi ba mu leer ba ni war a mel ba fi mu war a toll ñu gis ne fii ñu may Cheikh Anta ci loo boobu des na yeneen 5000 mètres carrés nga xam ne day nekk 5 hectares wër ay millions yu baree baree baree bare bëri investir ko ngir jébbal ko ay musiciens am lii nag yaakaar naa ne la ma waxoon bi may dem Angleterre ne en 1960 de nos jours ku ma sa téye micro ki Sénégal way président Wally Ballago Seck lépp njariñ bi ma koy wax ci lii rek laa ko tegoon dama koy wax di dem Angleterre coow na wax ci bëri dama loolu li mu wax fan teg ana ay maami waale waaye lii ku gis nen na ne la ngi nii 5000 mètres carrés lu toll noonu ci ay centaine de investir ko ci suuf fii ci Bambilor jébbal ko sa ay musiciens. woo man na moom porte parole du président ma ne ko oui monsieur le président mu ne ma bëgg Ramadan ak staff Faramareen bi bu kenn des trente parcelle lay mat jàpp quarante. yu deux cent mètres carrés na ñëpp am. fii may wax yow kayit yi génn na parcelles yaa ngi nii disponible na ba fii may wax ak yow rabbi dès demain lundi ku bëgg borne collecturé le président teg liggéey bi ci loxoom. sunu chef chantier bii nga xam ne tubaarkal macha allah. mi nga xam ne mooy wàllu clôture président daf ma ne monsieur ma may naa leen terrain yi ci xol bu sedd guy waaye ku ci ne ci ñoom dinaa la borneel dinaa la clôtureel danaa la wutal bunt jox la say jaabi yaay tabaxal sa bopp nag ah yaakaar naa la ko gis ku la takkal jabar joxal la can joxal la warugar naan la céetal la ci des war ngaa mën a céetal président xal na suuf si xotti na teere yi na xaañaat fexe musicien bu ne ak képp ku bokk ci staffam mu lay liggéeyloo am nga ci suuf si. woo na Modou Mbaye mii xaritu papis la mooy borne mooy collecteur ñu tëj bunt yi jox la sa caabi lay na ci biir nag tax nga man faa fanaan yaa koy def kon nag son excellence ñu ngi lay ñaanal yàlla guddal sa fan téwér sa jër la ci job dëggeen bàyyi jot démb dëggeen bàyyi démb bi si dëggeen daagu daagu dëggeen bàyyi pour faal dëggeen da doon lu muy 5000 mètres carrés sotti ko ci ay suuf séddale ko sa si sa yéene bàyyi te li gën a a sedd sama mooy nag ma ne le ministre Omaro ma la laam nga ne naa ko sama bàyyi cité Papa a jëm amoon ci samay musicien muy ay musicien am man maa ko mottali yaa doon sa maam nag Diop di ngeen bàyyi waaye yaa doon sa bàyyi Alaaji Thione Seck Papa Thione de ca xol mu rëy ma ak ca mbaax ga ca yaatu ko ci mën a bokk ga ku ne xamoon na ne amoon na ji yéene waaye mottali ci yow la yàlla dogalee yéene ji sotti kon nag cité bii nga xàll muy 5000 mètres nga may ko say musicien ak sa staff tuddee ko sa bàyyi Papa Thione maa ngi lay ñaanal waal yàlla nga jur doom ju man lu raw li nga man yàlla bu dee mooy maye lii nga teralee sa baay lii nga sagalee sa baay lii nga sëggalee sa baay Papa Thione fu mu tëdd daal na ndax yéen ji yàgg na ko am ci ram daan waaye ci ko yàlla jaaree yaa ko mottali kon maa ngi lay ñaanal Maria Sine yàlla guddal sa fan te wéral say te loo man ren yàlla nga mën déwén ko Ramadan nag naka jekk ma xam ne ni ma lax mi safee te gaaw ñu ngi ci jàmm. waaye dana gën a saf dana gën a tàng dana gën a neex dana gën a gaaw maa ngi leen di ñaanal jàmm di leen ñaanal mucc di leen ñaanal wér di wax nag na ñoom ñoo ki des président li ko waroon def na ko génnee na xéwal li joxe kii ci génn la ko des mooy ñu indi seen kàddante ku ci ne sa 200 mètres carré ñu defal la ko sutur boole la ak Modou Mbaye Papis jiite liggéey bi nga ñëw ñu collecté la jox la say caabi nga tam. yaa xam da ngay def R plus 1 yaa xam ndax da ngay def rez-de-chaussée yaa xam ndax da ngay def immeuble yaa xam da ngay def R plus 3 cours ni fi sa door a toll rek doxale addee da ngay dugg directement ba ci li nga xam ne mooy ci biir ci biir ci biir ci biir cité bi hmm. cité Papa Thione parce que tali bi tey tali Bambilor bi hmm. nga xam ne moo nekk ci route nationale bi hmm. dugg ci biir dëkk bi moo dem ba ci biir cité Papa Thione fi nga xam ne fi la président Wade xaar teralee ko ay musiciens am mhm. waaye teralee ko it macha allah njabootam staffam mhm. waaye nag tubarkàlla macha allah defati na lu baax mhm. laa la chef président defati na lu baax mani nan la lii jikkoom la mayewul àll de te dama ne bu bu leen mayoon àll sax gars yi tabax ndax ay borom jom lañu te damay faral di wax naan teere foo ko am baax la ndax sagub nit suturab nit mooy bu guddi jotee mu génn ci àll bi génn ci tey foo am terrain ci àdduna rek. sab saga sab sutura la. waaye tey digg Bambilor. ku ne xam na waaw ku ne xam na ni Bambilor. yaatoo ni mu dundee ni mu naatee léegi. Kër Massa Lac Rose Bambilor Bayaax yooyu ay gox la yoo xam ne ay gox yu fasantikoo la yoo xam ne fii ci réewum Ndakaaru màgg na màgg xam ne ñëpp génn nañ ci centre ville bi si ñëw fii. fii mu may ay musiciens buñ ñëwoon gis àll kese danañ tiit waaye dama ne béton ngi nii ak ciment ngi nit ñaa ngay tabax. bâtiment yaa ngi nii. courant baa ngi nii. ay borom yu a ngi nii. ay borom yu kër a ngi nii di ma nuyu. di ma taalal loxo jërë ngeen jëf. siyaar naa leen. daa jëfati fi mi si jàmm. président ngi fi. président ngi fi il va bien. ñoom seen i kër la ñuy ñëw xool si. ñëw di xool seen kër fekk ñu fi. bâtiment yaa ngi nii. Euh, bâtiment yaa ngi nii xam nga. Mhm. waaw président euh, mayul nit. ngi naan damay bàyyi ba dëkk ma dem dëkk lim la may bu neexee suba ñëw clôturer tàmbalee tabax taam ngay dëkkandoo am ngay dëkkandoo li lépp ay kër la li ëmb cinq mille euh, bi li ko ëmb lépp ay kër kër yaa nii yaa ngi nii ñoo ko wër yii ay tool la yii ay kër la drapeau bi fee mu nekk mooy kër chef bu Bambilor gis nga nit ñaa ngi nii waaw ku ku mini pàkk nga macha allah. waaw ku mini nga macha allah sama xarit bi. Cheikh Béthio moo nu yar. waaw macha allah sama xarit bi Cheikh Béthio moo nu yar bi mu may kër amuñu 15 ans. waaw bi Cheikh Béthio di xotti. 300 mhm. mètres carrés di ñu ko may man na salaam ak Touba. Mhm. boobu amuñu 15 mhm. moo tax doon xam suuf. ni xamee nag xam ndawal xam tufe. nu ko raw lañu xamee suuf kii suñu dëkkandoo la. boo gisee li tax ma ñëw ba fii. mooy dama lay wan na ni président mayewul àll. demul jël ab àll. xotti ko ba ko fenn xamul jël ko may ay misiem déedéet mhm. ab dëkk la maye buy màgg mhm. fii ci Bambilor mhm. mu jël cité tuddee ko sunu baay Alaaji Toj Seck may ko ay musicien mu waram daan ak staffam Framari production mhm. kii dëkk loola xaw ma ko xawma mais dama ko fekk muy tabax te leer na ma ne fii mu dëkk dana den ak kaay kenn ci gaay waaw agence bu bees la mu ngi tudd vision moderne ñu ngi def suñu service yi ñu ngi def wàllum import export location de voiture vente de voiture prestation de service agence immobilier BTB bâtiment mu ngi nekk fii ci Mbambilor soriwul tout près. léegi ku leen bëgg contact lu muy defal la. da ngay jël numéro yi contact ci 77 524 45 38 78 247 71 82. képp kuy tëwoo li ngeen di def la contact si numéro yooyu incha après dinaa la envoyé sa compte Gmail bi. kontaan naa. incha allah. di daan di sama waay la. jàmm ña jaara bu sut. wala ma se bi jaara.